Messieurs, bonsoir et bienvenue ici au Dakar Arena de Diamniadio. 24e finale de l'afro-basket féminin oblige. Le Sénégal affronte ce soir le Nigeria, ici même à Diamniadio. Les Lions du Sénégal vont ce soir tenter de remporter leur 12e sacre sur leur propre territoire. Après avoir été battu en 2017 par cette même équipe nigériane, la bande à Astro Traoré va aujourd'hui tenter de relever ce challenge. Comme vous le voyez aujourd'hui ici, l'Arena euh, refuse du monde le peuple sénégalais les supporters se sont déplacés en masse donc euh, magnifique. comme nous voulons le Dakar Arena avec ak Abdoulaye John. Euh, finale Afrobasket féminin euh, Sénégal Nigeria Taïdina, jii people peuple qui a été nañ ñëw fii fas Abdoulaye Yakarnani, nous ne Dakar Arena pour l'instant à quelques heures du match instant B, Ken waaw Moustapha di leen nuyu yéen mbokk internet yi nga xam ne ñoo ngi seetaan si Dakar Actu comme ni ngeen ko gisee fi mu nekk nii euh, Dakar Arena nit ñi ñëpp ñëw nañu ngir euh, pousser Lions yi nga xamante ne ñoo ngi ñëw ngir jàmmarloog ñi nga xam ne mooy équipe bu Nigéria ku ne xam ne ni Nigéria nag moom moo dooroon Sénégal ci compétition bi nga xamante ne moom la ñu jógee fële ca Mali léegi nag tey Sénégal war na mën a def loo xamante ni lu jéggi day lu doy waar ngir mën a euh, jàmmarloo ak ñi nga xamante ne ñoo di équipe bu Nigéria fi mu nekk nii nag euh, Dakar Arena bëri na ay nit lool fi mu nekk ni Sénégalais yëpp jóg nañ ngir supporter seen équipe fi mu nekk nii daal euh, bunt bi sax am na ay nit ñoo xam ne ñoo ngi jéem a dugg mais mënuñoo dugg ci terrain bi parce que tellement gars dañu jóg ngir bëgg a pousse seen équipe fi mu nekk nii sax bi ñuy ñëw romb nañu ay supporters yi nga xamante ne ñoo ngi ñibbi parce que amuñu place amuñu billet fi mu nekk nii billet yi jeex nañu mais xam na ne ci kanam tuuti léegi dinañ ñëw ngir dëgtal leen ambiance bi nga xamante ne nii moo am fii nii ci porte Dakar Arena ngir euh, dëgtal leen ambiance bi xamante ne moom moo fi am en ce

nga xam ne revanche la nara doon tey jii diggante Sénégal ak Nigéria. soxna si suur bi naka la. Euh, Adja Dieng. alors tey euh, lan ngeen fas yéene supporter Lions yi ginnaaw match bu métti bi leen di xaar contre Nigéria. ah dinañ leen supporter moom li ñu mën di leen pour encourager leen ndax sunu encouragement moo leen di jàppale daal pour ñu gën a am jom. waaw est-ce am nga yaakaar tey ñenn ñi nee nañ euh, comme dooroon nañu 2017 peut-être que tey final bi euh, mun nañ ko ñàkkaat est-ce que am nga yaakaar. dañuy bañ moom dinañ bañ ba dee. Mhm. waaw nga mhm. ban message ngay adressé au Lion tey ñu waral football final bu métti seen diggante ak Nigéria. waaw di leen ñaanal xool yàlla def si xéwal rek wis si ndox mu sedd mooy gars yi jël trophée bi xam nga loolu mooy loolu lañ leen di ñaanal ndax moo jëlee woon suñu kër quoi pour jàppale leen pour pousse leen pour ñu mën a jël. trophée bi daal mu bañ a dal comme niñ suñu gaynde yu góor yi defoon daal loolu daal lañ leen di ñaax ñoo ngi leen di ñaanal sëñ Tuubaa teg leen loxo affaire yi ak ah xanaa ñu défendre rek waaw bañ décourager affaire bi moom tey moom victoire rek lañ gis gisuñu leneen waaw. yow tey lan nga gis ci final bi Sénégal Nigéria yaakaar naa ne du yomb même si Lions yi seen public la ñu nekk tey. ah xanaa ñu joué rek. final moom bu naree yomb rek ñu bàyyi ko yaa am xam parce que huit heures ba tey ñoo ngi fi mën ñoo fexe ba dugg di leen wax tamit aussi que ñu yokk défense bi yaa am gën a xam affaire bi ku ko gën a bëgg rek. Mm. mooy jël affaire bi incha allah. ñu moom ñoo ngi leen ñaanal ndam ñoo c'est bon sëñ bi tur bi naka la. maa ngi tudd Abdou Khadir Dieng. Euh, tey lan ngay xaar ci Lion yi ginnaaw final bu metti bu ñu nar a jongante seen diggante ak Nigérian. waaw final moom franchement ren moom euh, tey moom du ñu du ñu ay du ñu ay favori waaw ku xool euh, xam ne Nigéria franchement moo ñu gën a baax ci point yëpp te xanaa ñu jàpp ci rek xanaa ba ci daal comme match bi passé. mën nañu am dara quoi mais je sans apport public bi duñ ci génn tey moom parce que Nigéria ngeen di voilà wax na lu am solo maanaam apport public bi tey Lyon ñi dañ koy soxla euh, ba léegi ci ñi nga xam ne ñu ngi leen di gis ci rang bi euh, sëñ bi est-ce nañ xam ne yéen fan ngeen jógee pour ñëw tey soutenir Lyon yi. ñu Kër Mbaye Fall lañ jógee. Mhm. yéen a ngi fi depuis kañ. 10 heures. 10 heures ba léegi est jot ngeen am ticket pour dugg ci biir. waaw mhm. ah. tey lan ngeen di réserver Lyon yi ginnaaw final bu am solo bu ñu war a jouer tey contre Nigéria. ah yoo xam def ndam rek. waaw ndax ñu moo dañoo sonn depuis ba léegi ñoo ngi fii pour loolu kase. waaw gars yi instant moom la ñuy desal waaw dóor waa Nigéria ñu waaw yëngal dem fenn waaw. dóor waa Nigéria yëngal yow tey lan nga jàpp ne euh, supporters yi moom la ñu war a mën a def pour ñaax Lions yi. non comme bee passé rek contre Mozambique bi na gars yi supporters na yëngal ci kaw gars yi yëngal suuf loolu kese la ah. ndax Nigériens yi moom mooy loolu level bu xaay lañ yor mhm. mais buñ ko gérer rek mooy loolu nañ ci génn quoi.